donc di di mixé wax euh, mixé DJ donc donc son rôle c'est d'animer n'est-ce pas des des soirées waaye soirée bi nga xamanteni japp nañ ne loolu yëpp la doore ki nga DJ Cool Herc nga c'est d'ailleurs en fait l'incontournable n'est-ce pas du du rap euh, du hip hop kooku sœuram bu wax Cindy Campbell mom mo doon organiser premier euh, show bi ñu Black Party ay soirée de mbedd la yo comme que ñom nénañ dañ leen en rade donc amul won inclusion ci société à cause de la discrimination raciale et du racisme euh, et voilà ñom dañoo dem ñu fil ci potalamp bi indi sen boom basique daal di tek sen ay moyens de bord donc noonu lañ commencé di def seen soirée ñu ne nag comme que ñoom ña ngay def seen i soirée fële te ñun amuñu accès pour mën a jënd ticket ci théâtre yi xëy na ci yeneen salle yi wala fi nga xam ne fa lañu defee seen peinture ñun ñu ko am nañu def suñu ay graffiti ci ci mbedd mi donc noonu la doore lépp ci benn groupe boo xamante ni ci mbedd lañ ko lañ ko commencé kenn ku ci nekk di ci exprimer wu waaye Africa Bambaataa bi mu ko créé ba tuddee ko hip hop dafa am ay principe yu mu teg muy peace love unity and having

ñi nga xamante ni ñoo nekkoon biir Afrique du Sud jubóowuñu woon ndax boo ñëwee di nga fa gis xosaa yi di nga fa gis soana yi waaye chacun moom si jëmi boppam dafa amoon benn esprit unificateur unificateur ba paré dal di am indulgence non la regrouper yenen en ah, tribu yi nga xamanteni ni ci biir Afrique du Sud ñu faire face n'est-ce pas à la colonisation ba xex ay batailles yu bari yo xamanteni ni am nañ ci ndam alors mom loolu la gis xëy mu ne mbolo mom moy doole loolu la gis xëy mu ne mom mbooloo mom moy doole dal di emprunter le mot Zulu dal di tek nak affaire bi tudde ko the Universal Zulu Nation donc ñu dindi ko ci tour organisation dal di dem ci tulu Zulu Nation pourquoi parce que amna na ay valeurs yo xamanteni ni gis nako dans la construction ou bien dans le euh, précepte de développement n'est-ce pas en personnel bu ko emprunté moy que ni kenn ku ci nek si ñom dafa am ben un certain code de conduite bo xamné da nga wara waccok mom bu fekké ne Zulu nga ndax ñu goor ñi ñi ngi leen di woyé Zulu King jigéen ñi ak lépp lu nekk ay ay marginal ñoom tam ñu ngi leen di woowee Zulu Queen ñoom noon la ñu woowante ci seen biir wala ñu woowante axi axi mun naa nekk comme par exemple frère turu Zulu la waaye mun naa nekk tam en fait noon noonu lañ doon noonu lañ doon woowante pour wane rek que ñoom ñëpp ñoom ñooy am amul distinction de race ni de sexe ni d'ethnie et cetera donc noonu lañ doon noonu lañ doon wootante seen biir donc hip hop loolu loolu la njëkk a jàngale ci njëlbeen gi tam unity unité bi bi bi bi mu bi mu jeexee après mu ne mu ne mbëggeel loolu du mën a am te kenn ku nekk bëggul moromam comme ni mu bëggee boppam li mu yéene boppam mu yéene ko ci moromam sama jël njëlbéenu kàddu maa ngi lay wax que ni ki nga xam ne dafa sóobu si hip hop moom esprit bu positif la war a am ndax góor gi ñëwoon fii ñu koy woowee euh, Obiodun tam nekk ci groupe bi ñu naan Last Poets ñoom ñi nga xamante ni ñoom tam avant rap di tudd ngi doon def spoken word bi ñu ko waxee was hip hop dafa ne is a positive spirit maanaam mooy xel moo xamante ne ni xel mu sell la. donc hip hop non non non la doré alors loolu bi amé nak nag nak affaire bi nak jogé na ci organisation Tudu Zulu Nation mom il faut mu commencer légui boy yi nga xamante ay bandi la ñoo nekkoon ci yeneen gang nekkoon ci fep ci ghetto New York bi notamment bir Bronx mu ne day dem di def ay toog ay sensibilisation ci bop koñ yi bi muy dem nak demul rek mom kese motax mané la œuvre humaine la autant que sociale qu'artistique dafa xol touti ci tawraat gis les dix commandement de Moïse mu daal di jël loolu daal di koy mutualiser xool touti ci indine defe naa évangile am lu ci djel dal di ko ci bolé dal di xool ci li nga xamante ni moom la ñuy religion islamique l'islam mu le Coran mu daal di am lo xamante ni sàcc na ko si ci la tëggee yor naa sama machine li nga xam moy déclaration code de conduite bi nga xamante ni, ay article yo xamante ni képp ko xamné da nga nek Zulu mom nga war di doxé moy l'amour de son prochain la quête n'est-ce pas du savoir fépp foo mun munti nekk nga xamante ni sagesse wala xam-xam rek moom moo la mën a jëmale kanam donc noonu la ko tëggee mu nekk une déclaration boo xamante ni war naa def ay trente articles xam naa après ñi ko bëgg mun nañ ma kii mun naa leen ko mun naa ko partagé. noonu la doore mu ne mbir mi nag li koy laal nag précepte de base moom mooy peace mooy jàmm love mbëggeel ndax jàmm du mën a am fekk bëggantewuñ and unity mbooloo.

di jël ay arme ay arme di rayante ci ay xeex yoo xamante ni monopole drogue la rek ba ay centaine de morts di ci am lool pour mu éradiquer ko dane nañ jël suñu énergie en fait négative ñu canaliser ko daal di indi énergie positive looloo waral tey boo gisee booy biir géejawaay hip hop ñuy saa ñu ñuy def kii ñu ko xati euh, comment dirais sayfa di sabante léeg-léeg di nga gis nit ki dina wax a wax ba nga gis ko mu mer te loxoom du ko mën a yëkkati mu mu mu dóor mu dóor keneen keetam après day xaar micro bi buñ démé ba nga xamanteni ki kii na mu daal di jël mom tam wax li nga xamanteni ni mo nek si si si si si xolam dem ba jeexal te du jog bal du tak sagar du xéñ lolo tax tam batay damay faral di wax ni hip hop kuko kuko manam ku ko xamul xayna mën nga ko soufel waye hip hop ci ben gi tamit développement personnel la leadership la waye aussi entrepreneuriat la ndax ay nit la ño xamné amuñu won dara seen loxo lañ commencé am xalaat mool dara gëstu ñew teg ko ne li ñing ko tuddé hip hop hip bi boko ko ñu né la moom mooy euh, mom moy prise de conscience mom moy voilà l'éveil té jang nañ sax ci yeneeni téré que ni même le mot hip sax ndax boko xolé dañ lay wax ne c'est d'origine africaine mais incertaine té hip boko xolé mom moy le diminutif de hippie hippie wa xolé qui signifie l'éveil donc ñun batay loolu lañ japp ndax tam buñ délo ci préhistoire bi comme ni nga koy waxé da ngay gis né biñ ñëwé di yóbbu yoruba yi lañ gënoon a Sénégal bi lañ gënoon a tibb ay esclave daal leen yóbbu ci ci plantation yi te nit buy dem day yóbbu cosaanam day yóbbu aadaam day yóbbu culture am donc langue moom defe naa melting pot la tey boo xoolee tey sax li nga xamante ni moom mooy wolof ñu bëri dañuy wax ne du làkk ndax c'est wala un ensemble de dialectes voilà africain da gis yooyu ñoom ñoo daje foo tourné da nga gis ay diphtongues yoo xamante ni da nga koy gis fii gis ko fële Cheikh Anta expliqué na ko ci nation nègre et culture def voilà similarité yi nga yi nga xamante ne am na ak parenté linguistique bi donc noonu la doore waaye nekkuloon rek ci aspect artistique ndax ñoom lépp loo xamante ne nii maanaam dafay jëmale kanam ñoom seen communauté blague yi loolee Africa Bambaataa ci déclaration bi loolu la doon ñaax ñi nga ni ñoom dañoo adhéré ci Universal Zulu Nation. mooy lu mel ni ay donation la yoo xamante ni xëy na ñi nga xamante ni bu sedd bi ñëwee biir New York ku xam ne ne day sedd dañu soxla ay mbaaj yi ñi nga xam ne ñoom ñoo leen tane dañ leen war a dimbali ci ay mbaaj nga xamante ni dañ leen war a jox ay. ay café xëy na ñu naan wala ay leneen yooyu itam dañ ci doon jàppalante seen biir waaye ñoom tam ñu am seen benn du secte nee na nee na Zulu Nation bi du secte du religion du leneen waaye communauté la communauté la boo xamante ni entre aide euh, partage n'est-ce pas de bien mais de connaissance lool moom moo nekkoon seen biir looloo waral nga leen di gis ñoom seen jëmmi bopp képp koo xamante ni am nga xam-xam te mu doon li nga xamante ni ñoom dañ koo farataal lool ndax hip hop ci loolu la doore maanaam awareness donc prise de conscience xam dang ko wara partager partagé ndax nee xam-xam du jariñ fek partager wuñ ko nee nak xam-xam nekul li nga xamanteni ni lañ la xamal ndax ñom toujours dañu contre li nga xamanteni ni sax mom moy sen sen programme scolaire et cetera éducatif bo dégloo ko ñu melni ay Dead Press nga xamanteni ni ay rappeurs underground da ngay dégg sax ñu lay wax dem schools ñom sen sen école waye ñom du sen école donc pour ñu pour pour ñu ñu leral mom day expliquer toujours mu ne xam-xam nekkul ne li nga xamanteni mom moy li nga gis ci téré yi mais li mooy connaissance bi nga xamante ni ci prise de conscience nga ko amé té sa xélam bop mom mo la ko may sa intelligence muy faculté bo xamanteni ni sunu borom ku nekk la ko jox waye likoy yé lool xayna une situation bien déterminée la ñom lool la ñuy connaissance pure mu ne loolu nag képp ko xamanteni ni am nga ko da nga ko wara dem partager ndax lool mom moy tax mu nekk lu valable té ñom seen demi bop seen intégrité ñom Zulu King ak Zulu Zulu King ak Zulu ah, en yi ñi ngi seen intégrité ak tam seen émancipation mi ngi départ ci xam-xam lolo tax histoire Afrique ay Alex Haley ñu ñu farataal ko ñom si li nga xamanteni ni mo nek sen tosan ak seni ada ñu faratal ko mais naka lañuy mëne jëlé sen bop en charge ba ñom tay ñu joggé comme niñ koy waxé ci sen précepte bobu from zero to hero wala from nothing to something daal di dellu nag teg ci biir hip hop li nga xamanteni mom lañu wowe street entrepreneurialism qui est l'entrepreneuriat de la rue moy kan nga am xalaat kan ni man kat amna ben dollar warna ko mëna def. ñaareelu dollar war naa ko def juróomi dollar noonu la ko Kaaris Wan di waxee mu ne li nga xamante ne nii moom moo nekk street entrepreneurialism nekk loo xamante ne nii maanaam am xaalis ci nimu la neexee mu ne it's not the nigga standing in a in a street corner selling dope or selling crack it's just like I have one dollar how can I transform it to two dollars nee na nekkul nigga bi nga xamante ne négro bi mooy taxaw ci bopp koñ bi di jaay loo xamante ni pëndax bu bon la mooy que ni am nga benn dollar naka nga mënee ñafe fexe ba am intelligence bi transformé ko mu nekk deux dollars ci lu leew ci lu leew ñoom loolu la ñu woowee street entrepreneurialism mu nekk un élément n'est-ce pas du comme ni ko ni ma ko waxee rap nekk ko muy MCing breaking ak li nga xamante ni moom moo nekk DJing connaissance bi sànq insisté naa ci mooy li nga xamante ni moo nekk knowledge si hip la bokk ñoom moom la ñu woowee street knowledge mooy connaissance bi nga xamante ni xëy na joxuñu la ko ci téere yi ndax nee na loolu noonu éducation la dañ la cee formaté dañ la cee formaté ndax buñ déma néna na buñ nee yow blague nga nga gis ni xam man li li buñ ma xolé dañ naan ma blague la ma ñew ci tableau bi mu ñuul kuku ñu ne ma de blague bowut damay gis ne tableau bi couleur bi mu yor ak sama der bokut, waye dañ ma cee for forcé ma ci formaté ma ci batay buma bu tableau bi ñuul ma gis sama ki, damay fa dama nan man dama man couleur blague dal lol, lol la alors que du du lolou tey xale bi nga xamante ne nii dafa nekk fii nii ngeen koy gis muy jaamante nu ñu ko xati feriel moom boo ne ko black nga ba pare ne ko lii mooy couleur black bu defee ni loxoom daal di xool dina xam ne couleuru loxoom ak couleuru sac bi bokkul nee na nag xeetu xam-xam yooyu noonu nag moom la ñu woowee nag ki nga di xam ne dem na ba def distingo bi am xeetu xam-xam boo xamante ni mun naa distinguer li nga xamante ni moom lañ ko formaté ci wàllu éducation programme éducatif bi ak li nga xamanteni da ko acquérir sur le terrain par connaissance nee na loolu la ñuy woowee en fait street knowledge muy xam-xam boo xamanteni bu wér la boo xam ne ci prise de conscience nga ka nga nga ko amee. ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci entrepreneuriat ñoom bu ñëwee nga gis ay nit ñoo xamanteni ni amuñu woon amuñu woon dara ci street entrepreneurialisme nga gis ku mel ni comme par exemple ay ay ay Akon bii rek par exemple Akon. nga xamante ni il n'est même pas un rappeur R&B single mais li muy def xëy na c'est assimilable à la culture hip hop culture urbaine ku nekk xam na ne papaam Mor Thiam Sorano gii na la la nekkoon paa yi fi ba tey ñu ngi fi donc daal di dem ci année 70 Akon daal di juddoo foofu bu ñuy joxe exemple mun nañ ci taxaw tuuti ci entrepreneuriat. Akon jàng na ba nga xamante ne ni foofu noonu ek na niveau bac mais avant loolu indi woon nañ ko fii moom nee na ci li mu mooy année yooyu way boobu di génne ventilateur climatiseur mooy ay 87 88 ci la xaraf Kaolack mu daal di dellu. nee na bi nga xamante ne nii dellu na ci la continuer di jàng nee na bi mu jàngee ba niveau bac. boobu bi mu gradué ci la bàyyi mu jekki-jekki mu ne moom dafa bëgg wut xaalis xamul nan lay def mu commencé nekk tondeur voilà di di di di xuma nu ñu ko xetee nit waaw jardinier waaw di di tondre kii gason yi loolu la njëkkee mujj gi mu nekk en fait coiffeur di dajale xaalis bi mais nett li que ni biñu demee ba nga xamante ni ñu ngi continuer di def xeeti liggéey yooyu noonu nga xamante ni ci dans le jargon hip hop moom la ñu wooy hustling wala hustle muy du lenn lu dul xoslu day delluwaat ci baatu xoslu nee na loolee lépp loo xam ne amoon na ko ci day daw mu jënd benn micro daal di koy denc boobu mi ngi Atlanta saa bu demee ba nga xamante ne am na tuuti mu daal di jënd benn clavier bu ndaw ba noonu lañ demee di def ay maquette mu commencé di bind ay texte bindal na sax boo xoolee ki nga xam ne moom la ñuy wax Cave Suite album yu bëri yoo xamante ni doon na ko génne Akon moom moo ko doon bind te boobu amul tur jamono yooyu ñëw na fii 98 99 nit ñi xamuñu ko sax Aziz noonu la dooree commencé di def ay way ba jekki-jekki gis ngeen ko laak tëb boum affaire yi egg ci àddina bi yëpp donc pour expliquer la que ni xam-xam comme ni ko Kaares wan di wane waxe moom mooy doxal àdduna te hip hopeur bépp boo xamante ne nii yow en fait wala képp koo xamante ne nii bokk nga si mouvement hip hop bi sa li nga xamante ne ni moom nga war a farataal moom mooy xam-xam xam-xam nag jàng du ko joxe waaye gëstu ñun lañ jàpp ne moom moo koy joxe te Africa Bambata wax na ko nee na doo am benn égocentrisme boo xamante ni képp koo gis foog nga ni yow yaa ko ëpp xam-xam mais war ngaa mën a wàcc sa bopp xam ne am na loo xam te ñeneen ñi ngi ci des am na lu ñu xam te kenn ku ci nekk war naa mën a jàng ci moroomam loolu moom moo lay fortifier pour comme ni mu koy waxee nga jógee ci euh, négativité daal di dem ci positivité donc euh, pour l'instant man mun naa wax ne ci historique bi foofu laa foofu foofu laay yamandi waaye juste rappeler que ni <laughs> dès lors mun nañ jàpp que ni hip ak citoyenneté donc dañuy dem de pair ndax nit bu demee ba def prise de conscience rek daal ne man sama askan wi ma bokk fexe naa kat daal di koy jëlee ci ba waaw ci level bi yóbbu ko ci ci ci bi ci des donc loolu moom mooy euh, hip hop.